ne euh, ñu dugalaat ci pomme euh, politique bi euh, ku ci mel ne Khalifa Sall ak Karim Wade loolee ngeen raxasu woon ci ba set wecc tey bu ñëwee la moo tax nekk seen taxawaay. moo daaw déedéet ñun mosuñ ci raxasu ñaari discours historique dafa am. Mhm. te ñaari yëpp président Ousmane moo ko def mooy mars bi ñu ko bàyyee mu génne brigade de recherche bi mu génnee li mu njëkk wax bokk na ci fukki ponk yu juróom yi ñu jébbaloon Cheikh Mahmoud lu Muntaxa mooy na Macky Sall organiser élection du ci bokk. Mhm. te it na bàyyi candidat yëpp ñu kon parti Pastef moom mos sa wax ne nañ organiser élection ci kenn logique am mooy nañ organiser élection ñëpp bokk ci kon ñun candidature Karim moo candidature Khalifa Sall benn dérangé wuñ ci